amis téléspectateurs de Canal 4 Africa ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax am mbégte ak contentement bu rëy yi di jàkkaarloo ak yéen sur votre toute nouvelle émission Sama Star Sama Star nag boo ko déggee mooy émission bu mag bi nga xamante ne nii mooy dugg ci biir artistes yi su ma nee artistes yi nag bàyyiwuma kenn ku nekk la nga nekk rek artiste nga ci ba tax na tey jii nii Canal 4 di télé bu mag bi. ànd ak Cissé Dossa Diop bu juba saa xeeru Fatma mi ci juróomi liggéey yi loqatil leen benn star planétaire laa ko mën tuddee star bu mag a mag a mag je pense kenn dootu ko présenté ci biim réew waaye kenn dootu ko présenté ci àdduna il se nomme tout simplement Malick Toppé Malick naa la bu baax a baax. fay naa lu Dossa. alors tey mbégte la ak contentement ba jàkkaarloo ak yow ci émission bii di sama star ci canal 4. waaw maa ngi nuyu di la sant di nuyu euh, téléspectateurs yi waa Canal 4 yëpp. Mhm. waa Sénégal ak képp ku muy béggee à travers Sénégal le monde ak képp ku si taan sama série nuyu naa la naa la. alors artiste la boo xamante ne nii kenn dootu ko présenté ci réew mi comme ni ma ko waxee woon sànq euh, moom mii di Malick Toppé c'est son vrai mais. il a joué pas mal de production par rapport ak ay label yoo xamante ne nii sont bien distingués au niveau du Sénégal et même au niveau de l'international bokk na ci nga xamante ne nii moo di waa Clapep euh, aussi ak ñi nga xamante ne ñoo di waa Evenprod sur des produits différents euh, acteur la ci Grand Amour acteur la ci Paulina acteur la aussi ci série bi nga xamante ne actuellement moo nekk di toj réew mi muy xew-xew Malick su ma la waxee exactement lan nga may wax ci Malick Toppé pas acteur bi mais Malick Topé en personne lan nga may wax. bon Malick c'est une personne simple un Sénégalais lambda comme les autres citoyen avant tout voilà quoi qui mène di liggéey liggéeyam à côté ak tamit boole kook euh, cinéma bi tamit. voilà rien de spécial. alors comme ni nga ko déggee souvent gars yi yaakaar naa dañuy jël li nga xamante ne nii moo théâtre bi. mën nañu seeti ku nekk mën nañu seeti woykat bi mais tey sama star Malick la seet si Malick di acteur euh, souvent gars yi dañuy dañuy juwaaxle acteur souvent di juwaaxle euh, théâtre kat bi soit di juwaale comédien bi yow en tant que nit ku nga xamante ne yaa ngi ci millier bi nan ngay dundee loolu ak yan éclaircissement nga ñu ci mën indil. bon euh, c'est pas facile par contre parce que mais quand soo xoolee li nga tudd yëpp. si même milieu bi la nekk muy théâtre bi comédien bi acteur bi artiste wax tamit nit bi tamit ñu ñëpp c'est la c'est la même chose je peux dire sauf que après lu ñuy def moo xaw a différent mais bon loolu foog nga suivre benn formation boo xam ne bu poussé ndax nga mën a xam différence bi malheureusement ñu ñëpp ko suivre mais ñu ñi nekk ci milieu bi suivre nañ ko donc du on peut faire la différence entre ça. entre euh, la différence ci li nga lim fii léegi. d'accord on peut faire la différence ci li nga xamante ne moom laa fi lim léegi tel était les propos de Malick Topé alors euh, comme li nga wax sànq formation yi bëri na fi pourquoi yow en personne nga taamu li nga xamante ni moo di cinéma nga ni moom lay def bien vrai que y a autre chose yoo xamante ne yaa ngi koy def ci biir ci suuf. passion la rek. passion la. lan moo lan moo animé passion boobu loolu loolu la loolu la gars yi bëgg a xam loolu la fan si lay suivre bëgg a xam loolu la yenn proches yi nga xamante ne xëy nañ xëy gis Malick devant la scène te xamuñu lan moo ko ci dugal passion boobu lan moo ko animé. bon passion bi moom mën naa ne euh, passion c'est une passion de vie en fait parce que te bu ma bëgg cinéma. bu ma nekk xale bu ndaw la xamatuma ñaataat la am euh, bu ma ñu ko wax sama yaakaar dama bëgg jouer soo amee j'avais à peu près yooyu noonu ma ko mos a fàtte film daal laa seetaan ak yaay ak sama yaay après euh, voilà quoi tout à coup ma sama ma ne sama yaay su ma màggee comme ñii laa bëgg benn dama ma ba mu ma retaanee je me suis dit que euh, kii lu mu retaanee nii dafa mel ni cinéma bi dafa mel ni daal dugg si daal du du du du ah, yomb quoi non du yomb. man noonu laa ko jàppe woon après jukku ma faat ma génn sama xel man ne lii moom xam naa du luy am quoi après ma dem ba si biir. moo am commencé am ay kii ay un café avec production ak théâtre ñoom saaneex yi mais ba léegi gisuma sama bopp mais il a fallu que Marodi ñëw ak série euh, Pod et Marichou enfin ma gis sama ay morom ñoo xam ne sama ay morom jeunes yoo xam ne ñu ngi def loo xam ne c'était dans moo rêve il a plusieurs années ñu nekk jeune ñu ñëpp je me suis dit bon pourquoi pas en fait sama rêve boobu bu ma nekkoon xale maa ngi nii tey ay jeunes sénégal di ko def nekkatul Macky mu doon gis en fait donc du coup je me suis une occasion à saisir parce que booy yi ñu koy def fii Sénégal après noonu daal laa si duggee te comme par hasard même pas deux jours après bu ma waxee loolu ma dégg benn casting am waa Marodi si boppam. si laa demee c'était mon premier casting amagu moon trop expérience donc du coup bon malheureusement mu jëm ma profil bu ñu sélectionné ma mais bàyyiwuma c'est la commence nag di dugg si milieu bi xam nga di dem casting casting casting après à la fin on commencé am ay production benn benn noonu laa si duggee. d'accord euh, bien que nit ñi bu ñu bëggee dugg ci série souvent ci casting yi la ñuy dem y a certaines yoo xamante ni euh, y a des personnes yu leen di épaulé ci biir métier bi. Mm-hmm. Malick il s'est tourné vers kii wala ko euh, genre kan moo ko teg loxo ci métier bi ba tey affaire yi xaw a yomb ci moom. Euh, si série yu ma jot a joué yi nga lim sànq lii di Grand Amour lii di Paulina ak xew-xew mu benn casting boo xam ne def naa ko bu ñu jël ma si pour être honnête bon xanaa casting sauvage je peux dire parce que lu si ëpp sama photo lañ jël à part Paulina Paulina si euh, voilà quoi Paulina affaire connaissance la entre producteurs yi nekk dañoo xamante mais lii di Grand Amour ak xew-xew mun naa ne sama image ma faral di dugal le gars gis profil. intégrer aussi après jël daal lay contacter d'accord mu mel ni kon di gars yi di wax am na solo être la personne que tu es avant d'incarner un personnage aussi daf ci am solo sa personne bi nga doon moo tax tey nga gagné yeneen ñaari projet yeneen ñaari projet wala yeneen ñaari production yoo xamante ne nii euh, mën naa ne yaa ko may sa bopp laa bëgg wax en fait voilà alors euh, dañuy jóge ci benn étape. dem ci beneen étape c'est-à-dire dañuy alterner ñaari étape comme ni ma ko waxee woon sànq dinañ dugg ci Malick dinañ dugg ci acteur bi mu doon euh, tey su ma la wonee benn photo ne la Malick kii kan la lan nga may wax. <laughs> bon kii mooy sama lépp mooy sama mooy sama yaay mooy sama xarit mooy sama moo jàppale daal si lépp bu ma nekkee xale ba léegi musul bàyyi mat na ma lépp. mat na ma lépp lii di sama jàng école lii di sama éducation si mbedd bi si biir lii di ba si cinéma bi sax mu ma si jàppale bilaay des fois sax daf may woo téléphone allo contactel diw contactel diw bilaay alors que pas facile y a d'autres yoo xamante ne tey dañuy dugg ci dara seen yaay ne leen bul dem alors que c'était le rêve de leur vie seen yaay tere leen ko dañuy bàyyi ah, moo tax nag moo tax tey bi mu man a wanee photo bii na mais daal di kontaan mais daal di kontaan parce que li nga wax ni léegi yombul parce que Sénégal on est dans boo xam ne Sénégal on est boo xam ne euh, gars yu bëri amuñu culture xam la mooy cinéma en fait nangul ko seen euh, seen ay seen ay booy yu ko bëgg mhm. mais comme soo ko xoolee rek série xew-xew bi ma nekk di joué nii maa ngi si nekk DJ mais sama papa bëggul ma nekk DJ wala c'est une histoire te Ivan Prod lu muy bind dafa fekk dafa si dëkk bi dëggantaan mais bon sama yaay am na benn mentalité boo xam ne elle est c'est hors du lu ma ko teg si dama si jàppale tamit pourquoi parce que dama ko bëgg. ça se voit ku jege sa yaay nga. bien sûr. <laughs> alors ci loolu lay liggéey daal di ñaan ñi nga xamante ne ñoo di samay techniciens yi ñu wan ma benn élément boo xamante ne nii euh, production wu Malick la Malick moo ko def ci li mu wax ci yaayam rek la ñuy dëggal au fond nit ñi bu ñu koy seetaan dañuy sentir ne ci yow la nekk ñu dem jëli ji élément boobu daal di ñëwaat. c'est chaque jour la même discours yaay dama sonn si discours boobu noonu j'ai 23 ans li ngay wax ni mënutul dugg sama nopp bii nii benn benn wax laa bëgg xam xam nga mooy lan yaay encore une fois yaay. andi sama pap yaay andi sama pap yow déggoo lu ma la wax déggoo li ma la wax ne la mag yow ñoo ci yam képp gisuma ko wala déggoo loolu. xam nga mooy wax ji yaay yaay dañ ko wax une bonne fois pour toutes yow utaaloo ñu pap bu baax. waaye yow Malick koo yab. maa ko wax utaaloo ñu pap bu baax man maa ko wax man. yow xam nga lan la man duma sa moroom yaa ngi dégg li ma la wax ah d'accord. yéen li ngeen am ju tolloog yéen moo tax ngeen bëgg maa yet Malick yéen da ngeen maa mës a gis ci dara lu ñàkk fayda wala da ngeen gis gudd jot ma tëj leen dem doxi Malick bi ngeen juddoo ba léegi maa ngi daw ci yéen bëgguma seen benn moroom raw leen te xale bu ndaw laa bu ma neexoon def lu ma neex. aloo alors euh, ku nekk gis na seen bi yaakaar naa man ñu ko doon seetaan sax sama yaram daw na et complicité entre maire bi doomam y a beaucoup d'émotions yoo xamante ne man maa ngi koy sentir mënu ma ko expliquer donc am naa occasion man yéen ñi nga xamante ne nii yéenay seetaan euh, Malick Toppé en tant que personne expliquer leen seen boobu noonu. bon seen bi euh, maa ngi jege sama yaay di ko laaj sama papa fan la nekk. bon à un moment donné euh, xaw naa déraper si kawam pour tax soo leen xoolee commentaire yi sax gars yi bëri ñu ngi kaas ne lan moo tax kii di waxee nii yaay ma kii yaayam la warul waxee nii ak moom. Mm-hmm. et mais bon parent moom dafa fort quoi si si xale bu nekk xale ba léegi mosuma woon gis sama parent mosuma gis sama pap donc du coup dem dem naa sax ba fàtte kii sama yaay la manqué naa ko respect lépp si théâtre bi bien sûr. Mm-hmm. ba kii ba yuuxu si kawam gëdd ko mais après à la fin yaay moom ñaari léem sa nekk. Mm-hmm. après si la ma wàccaatee xam ma ne man maay sa yaay du ma sa morom après si la calmé mm-hmm. voilà quoi. alors euh, sa yaay la dem na ba calmé wu la seen boo ko seetaan da ngay sentir que ni c'est pas l'acteur mais benn instant personne bi day dugg comme quoi que da nga toog ak sa yaay bi la jur di wax ak moom. Euh, émotion boobu foo ko jëlee c'est-à-dire lu nekk la ci yow la wala boobu da ngay ba mu yàgg affaire bi imprégné wu carrément. bon li wax la ma joué ba si yàgg affaire bi imprégné carrément parce que euh, comment je peux dire séquence boobu noonu dem leen bu coupé mais ba léegi man maa ngi toog fi ma toog di ñàngal di mer alors que gars ñu ngi euh, monté caméra yi di ñibbi man maa ngi fi ma toog ñàngal di mer parce que ba léegi je euh, je suis pas arrivé en fait sortir si personnage bi mu dugg tellement que c'était trop fort. donc liy dal nit ñi si biti daa mel day dal acteurs yi parce que souvent gars yi dañuy comprendre dañuy. jaawale euh, personne ak personnage ba tax na li nga joué dañ la koy jugé mais aussi acteur bi ak si pare des boo xamante ne day am problème pour génn ci biir rôle bi. waa récemment maa ngi seetaan benn interview bu Roger def si euh, Cœur brisé mu ngi wax li exactement en fait. Mm. des fois acteur day joué benn benn scène toog lu yàgg du si mën a génn. man tamit daf may dal am na tamit benn scène boo xam ne si Paulina toujours joué naa ko ba jooy te bu may jooy sax yëguma ko sax dama jég saay ma wax mais sama gémmiñ dara géntul mm-hmm. ba ma def ni ma ne mais maa ngi wax mais gisuma dégguma son ma ne ba ma ne bu ma waxee la ma wax sama xel la moo xewoon fa ma def nii nekk sama fii tooyoon xepp te xaw moon sax que maa ngi jooy tellement que je suis rentré dans le te. te yëguloo ko. donc loolu je pense souvent passion moo koy def ak bëgg bi nga bëgg sa passion c'est toujours comme ça ci sama star ànd ak Canal 4 dañuy xool li nga xamante ne nii moo gën a baax li nga xamante ne nii moo gën a agréable ci artiste bi nga xamante ne moom lañ dem seeti ji ñu génnee ko tegal la ko ci plate bi su ko defee yow aussi nga mën ko déguster bu baax a baax a baax a baax alors euh, dañuy jàll ci beneen scène mm-hmm. hormis affaire émotion yeeg genre émotion boo xamante ne peut-être mën na la jooyloo wala quoi que ce dañuy dugg ci benn beneen mood mood du je peux dire amour parce que souvent li ngay joué di nga ci am loo xamante ne sa vie personnelle lay doon Malick en réalité cœur à prendre wala cœur déjà pris <laughs> loolu nag question bu ñëpp la parce que déjà ku nekk xam nga ni crush xale jigéen yu bari nga loolu ñëpp naa ko wax nañ ko Malick il est beau <laughs> il est il s'habille très bien donc euh, voilà quoi c'est normal pour que yéen ñi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan ñu mën a xam ba xam ndax cœur à prendre wala cœur déjà pris. c'est déjà pris. c'est kon yéen ko déggandoo Malick cœur déjà pris. Euh, yéen ñi si defoon seen xel yërëm naa leen mes condoléances alors ñu gis benn produit boo xamante ne nii aussi def nga ko dañuy dem jëli ci élément bi léegi daal di ñëwaat aussi. man dama gis rek tiir ko war tuddee ñàkk wërsëg wala dadi rek dama matu rek sëg garab bu daanoo xob yàlla te xob ya dootul sëkkati loolu rekk tax la wax ma def ko xulloo waaye bañu ma dama laa xam lu ma lay waxee sama mbëggeel na yaay yaa may daaneel yow rek yaay ki ma doy yow rek yaay ki ma soo xamoon ni ma la soppee soo xamoon ni ma la bëggee ëpp na na yaa waaju nga yaa ngi may gaañ su ma mëggee si yow bu may gaañ waaye tey foog ma bañ bu yeboo sax nañ ma jàpp kañ waaye tay foog ma sañ génne lu nekk sama xol bi balaa ma mooy gaañ ndeya soo bañee dinaa la xaaj ndeya je t'aime acceptes-tu d'être ma femme alors mu ngi noonu ñoo ko seetaanandoo bien vrai que euh, comment dirais-je neex na mais aussi am na am na comédie boo xamante ne gis nañ Malick ci beneen aspect boo xamante ne gars yi yaakaaruñu woon ne Malick mu ngi ci aspect boobu noonu damaa ñu ci nga wayal ko feccal ko noonu je te laisse dem Sénégal yëpp ngi lay fait scène boobu la veille bu mu ko waree jouer. Mm-hmm. Euh, xaw ma scénariste je suis plus producteur bi daal contacté na ma nee ma nee ma genre euh, war a def benn poème boo xam ne su ma ko defee. Mhm. c'est juste avant la demande de mariage. man fi ma toog ne war naa def loo xam ne su ma ko defee ñëpp siy coow. billahi te nu ma ko waxee guddi si noonu la amee. damay ah aywa xam nga si dara <laughs> loolu loolu yàgg na. <laughs> non ñun ñëpp seetaan nañu ko yalwaat yi di si canal 4 donc euh, <laughs> voilà voilà quoi da ngay xool Malick ak physique am te di kii est qu'il est capable de faire ces choses alors que voilà ko. ah mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu mais bon jeu moo xam ne loo jeu mooy loo xam ne soo si duggee moom nekkatoo sa bopp quoi. Hmm. beneen nit ngay nekk te lu mu laaj da nga koy def. da nga koy hmm. def après bon ça a fait le buzz comédie comédie la ko gars yi a jàppee mais bon ça va parce que nit moom tey su bëggee da ngay jom. c'est vrai xam nga parce que hmm. sax si euh, si bi. soo ma soo ma retaanulee xaw ma daal dinaa la gaañ xaw ma je yàgg na nag yàgg na xaw ma retaan ma sinon naa la gaañ am daal lu ko waxee noonu on voilà mu ngi noonu je pense que ni ni sama xol seddee yéen aussi noonu la seen xol yi nekk di seddee ci ki nga xamante ne nii moo nekk suñu invité tey di Malick Tokpe un artiste boo xamante ne kenn dootu ko présenté ici au Sénégal mais aussi à l'international parce que mu ngi marque son empreinte ci li nga xamante ne nii moo di milieu showbiz bi alors Malick su amee loo xamante ne nii euh, bëggoon nga ko wax te laajuma la ko par rapport ak yow par rapport ak métier bi ngay def lan lay doon. Hmm, bon nii nii soo ma ko laajee nii moom du ma xam ne laay tontu honnêtement. d' accord yaa rien loo xamante ne nii donc euh, ñoo ko gisandoo amul leen loo xamante ne mu ngi ci bopp Malick loo xamante ne Ciss Dosa saa laaju nga ko noonu ça veut dire laaj nañ la lépp. waa <laughs> waa on peut dire. Malick ak ay xaritam. Malick ak ay fréquentation bon du changer du changer ñu fi nekkoon démb ñu fi nekkoon tey ba léegi waaw zone A Grand Dakar ñaari tali waaw ko laa xam xaw ma xaw ma ñeneen. ñoo fi nekk ba léegi amul ah. daaw loo xamante ne lu changé la ci ñi nga doon àndal wala ko ak. si tool non parce que souvent on a l'habitude que ñi nga xamante ne nii dañuy nekk ci yenn production yi bu ñu xasee ba am yenn tur yi rek. dañuy xaw a réticent ak ñi ñu doon àndal wala boog dañuy changer ay fréquentation wala ñenn ñi sax dañu leen di ragal a fréquenter. Mm. de peur que ñoom dañuy dañuy yaakaar ne yéen yéen a ngi ci niveau bii ñoom ñu ngi ci niveau bii nii. bon c'est vrai c'est vrai am ñu am euh, euh, mentalité boobu noonu comment je peux dire malheureusement mais bon man moom Baye Fall laa mu ngi la képp ku ma jege. xam ne man j'ai pas ce problème là tey laa gën a mën a wàccee sama bopp parce que milieu chose bi dafa nekk lu doy waar parce que tey mën nga dugg si benn milieu gars yi la xam euh, gars yu jege nañ lay bàyyi xel comme ni nga wax ni léegi nañu ne ok kii mu ngi commencé génne mu ngi commencé changer est-ce qu'il comme les autres du coup danañ commencé bàyyi xel yow tamit foog nga xel que gars yi ngi bàyyi xel si loolu gars yu jege quoi lay wax donc du au contraire sa copain yi duñ la ko baal. mën nga xaw a yàkkamti sax xaw a kii nii duñ comprendre ñun non xam naa cinéma bu muy def la moo tax kon du coup foog nga bàyyi xel bu baax a baax si loolu. Mm. te man dama si bàyyi xel bu baax. Euh, fii moom yàlla def ni diwaan bu ñu bokk moom diwaan bu ñu nekk moom diwaanu mugit la ñun ñëpp ay Baay Faal lañ xam nga waa kafe ga mooy loolu ko kon loolu moom du mënul mënul yàq daga suñu digganteem hmm. non non alors ban message gi ngay lancé jeunes yi nga xamante ne nii am nañu rêve pour def li nga xamante ni moo di cinéma peut-être opportunité yi mayu leen ko wala boog am nañu benn ragal wala beeg benn affaire boo xamante ni moo leen di téye pour que ñu mën a réaliser loolu lan nga leen di conseiller bon amul lu ñuy ragal en fait tey Sadio soo xoolee balaa moo nekk joueur seen waa village nangu ñu ko bàyyi mu dem mu ngi noon man tamit maa ngi nii sama yaay maa ngi wax ak moom au début mu may xakatay xam naa mu ngi ne lii moom du lu ñuy jege pourtant finalement maa ngi nii maa ngi joué si ay production bëriwul nag xeet naa lu ma def xeet naa lu xeet xeet naa lu ma jot a joué mais gën naa lu si kanam mooy dàkk mais bon nit ki moom soo amee sa passion la ngay dem la ngay dem quoi amul xalaat. amoo lay xalaat. Hmm. d'accord gars yi mën nañu xaar maay ki yenn genre produit. bon je sais pas je sais pas pour le moment ça dépend si gars yoo xam ne ça dépend si sama profil. Hmm. ak scénario yi est-ce que je vais matcher avec leur euh, futur kii. est-ce que yow pare nga pour jouer loolu non non non. Hmm. bon. non <laughs> non non quoi. <laughs> bon xam nga am na yenn rôle yoo xam ne soo ko defee gars yi mu ne la dëkkal fa même si c' est vrai que cinéma moom tu dois être prêt à jouer tous les rôles mais quand même on a nos réalités. en réalité mm-hmm. mu ne ok pare naa pour jouer rôle yëpp tey ma ñëw ñu jouer loon benn euh, benn rôle boo xam ne rôle góor jigéen wala xam mën na la topp ay at si image te yaa ko dara jàng ko fi en fait même si je sais que pour jàngale la ok amul problème. Mm-hmm. mais kam loo xam ne da lay topp ay ati ati at ku nekk di wax dara jagu ko. dara jagu ko alors. Euh, mbégte la toujours ak contentement di jàkkaarloo ak yéen yéen ñi nga xamante ne nii yéen a ak ñun du ñu topp via nos réseaux sociaux via internet bi euh, du ñu suivre ci émission bi nga xamante ne nii moo di sama star tey nag nekkoon première numéro bi ñu dalal ki nga xamante ne nii moo di Malick Topé alors l'émission tire à sa fin euh, lan ngay tàggatoo ñi nga xamante ne ñoo la doon seetaan sa famille sa entourage. bon di di sant di leen gërëm rek parce que amul kenn koo xam ne tey si lu ma nekk nii daf bëgg na ma si génnee wax dëgg fa neex yàlla di sant tamit maison de production yoo xam ne euh, jox ne ma sama chance ba léegi nii parce que yombul parce que yaa di centaines de milliers de jeunes yu bëgg am ay rôle si maison yi nga lim sànq. Mhm. comme lu si mel ni Yvonne Protec te tey il m'a fait confiance il m'a donné un rôle vraiment important mhm. kon maa ngi leen di sant bu baax a baax àggee fii nii c'est à cause de la confiance en fait qu'ils m'ont donnée. Mm. D'accord. alors merci beaucoup à toi aussi ci disponibilité bi donc lépp yomboon na ci ñun en fait. Euh, man personnellement dama lay remercier parce que connaissance bu yàgg la te boobu ba léegi comme li nga wax sànq lu may dëggal la rek yaa ngi koy doxal. Mm-hmm. Euh, mënoon naa la woo nga jaay ma jaay ma <laughs> affaire de star la léegi sa mag laa affaire yooyu noonu. mais tout a été facile non yooyu star nga yaay star mag <laughs> yoo la gaay topp man personnellement yoo lay topp. alors ami internaute de Canal 4 Africa ñu ngi leen di ziar bu baax a baax am nañu kontante. su sunu mbégte ci yéen du mës jeex ci topp gi nga xamante ne nii yéen a ñuy topp aussi ci wóolu bi nga xamante ne nii moom ngeen ñu wóolu ba di ñu gunge si sunu ay programme alors c'était votre premier numéro de Samstar ci Canal 4 Africa l'émission jeex na tey jii nii alors ñu ngi leen di jox rendez ci beneen numéro ak beneen star di jaajëfal bu baax a baax équipe technique bi nga xamante ne nii ñoom laa àndaloon Cheikh Assom sama directeur ak sama caméraman bu ñaawul boo xamante ne nii macha allah il est bien kanalkat di ci neex mooy ñi nekk ci ginnaaw ñoo daax sañ si ñi nga xamante ni ñooy toog devant la scène di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ki nga xamante ne nii moo di King Baba création ak son nouveau marque KB euh, tey moom moo solal si Stado sa alors ma ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal toute ma famille di jaajëfal toutes mes amis je vous donne rendez-vous sur votre ci euh, beneen numéro wu euh, Sama Star ak Canal 4 d'ici là portez-vous très bien